nga xam ni moom mooy wax ci turu njaboot gi njabootuk sëriñ jëmbu siise ki nga xam ne moom mooy jot li seen kàddu bismillah sëriñ Cheikh Awa Balla Gueye moom mooy wax ci turu njaboot gi bismillah bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi aqa amdi wa nusalli wa nusallim ala xaatami alambiyaai wa imaami almursalin sayidi wa xabibi wa qurati ayni muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa ashaabihi ajmain bokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen ndokkeel ci weeru mag wi xam naa nit dana laaj ni moo kii lu mu jotee ñooñu waaye daara jooju dafa bokk ci daara yi nga xam ni jaaroon nañ fa doon fa liggéey sabab ba moo di alaaji sëriñ jëmbu dafa doonoon jàngalekatu alquran doonoon boroom xam-xam itam yàlla dogal bi daara ji demee ba bari lool ñu mokkal alquran mu ñëw ci sëriñ bu ne ko gone yi de dañoo wattu te bëggoon naa ku leen jàngal aslëf ci xam-xam sëriñ Suaybu woo ma boole ma ak moom ni ko moom day nekkoon na ca sama daara jee ca taawe daa fa jàngale waaye manees naa am keneen mu dem foofa moom mu ñëw foofu mu yabal ma fa ca laa xame sañ jëmb ak i waa këram ma fekk fa ay boroomi xam-xam ñu xam alquran mu bëgg alquran bëgg sëriñ Touba lii tegtale loolu mooy kaamil bii ngeen wane léegi mu bind ko ci loxol boppam te sëriñ Seex Fatma radiallahu taala anhuma móolu ko def na ci it ab liggéey bu ngeen jàngoon téere bi faatiha bi sëñ Cheikh moo ko bind ci loxoom kon moo ko ubbil mbind mi kon loxoom mësu cee jóg ndax sañ jëmb dafa jeexoon ci sëriñ bi ku mënoon a bay la di bay lu bari waaye bu mbay mi masaa ñor dong yi ñime wuñ cee pétam lépp lay yóbbu tuubaa dugub ji ñimewu ko sax a góob da koy wax sëriñ bi sëriñ bi yabal ay dong ñu góob ko yóbbu mu des ak yàlla bëggoon bokki alxuraan yépp keroog bi ma fa sëriñ bi yebalee genn tàkkusaan laa fa wàcc donga yee fa tabaarakallaahu mbind yu rafet fekk fa itam ñu takku ndax booba jamono boobu waa kër sëñ Cheikh Mbacke ñëpp a nga fa wala boog ña ca ëpp ñoom sëriñ Moussa sëriñ Moustapha Cheikh Mourtada Serigne Assane sëriñ Abo ak jarbaatam bu ñu wax Serigne Moustapha Kan ñu booba ñoom ñëpp mokkal nañu Qur'an ak doomi sëriñ bi ci boppam ak Serigne Bassirou Sylla ngeen xam ko mu nekk imaamu ratib bu. daaru xuddus ma wàcc foofa yaakaar naa date woon naa sax dat bi bis bi ma fi wàcce wa bi waaxidin maa asratin li rabiixi at sasinil axiiri atayit nasaltu daara mujahidi cheyqi sëriñ jëmbal xumaama la si hawa kulla alfadaili bilkitaabi almajidi xad xaasa bil iqraai maa qad aasahu min ajri muqrii xayri dikrin maajidi fastaqbalat nii fastaqbalat nii fityatun bi bashaasatin fastaqbalat nii baada asrin fityatun bil basaasati fityatun xaasuu bi kulli mahamidi faraahumu mawlaahumu wa ajaarana fi fahmi kulli awisatin bil amidi wa xadimihi man nahjuhu mardaatuhu wa alayhi taslima al ilahi shahidi maha alihi wa sihaabihi man aytamu awlaada kulli muaanidin wa muaaqidi wa anil xadimi ridaahu maa qari alkitaabu wa ajsala arrahmaanu jas la mujaahid yi ci takkusaan googu nu tàmbali sunu liggéey di jàngale ñu jàmbaare lool bëgg xam-xam lool xale yu jàmbaare nekk foofu du nelaw guddi ku jàmbaare woon la ni ko sëriñ bi waxee léegi naafila këtu guddi la bëccëg bi ma nga ca njàng ma ma nga ca mbind ma xele yépp mën a bind waaye noonu la doone woon itam man ba ci njariñ tund wi yépp defe nañ ni ku ñàkk depanse ci sëriñ jëmm nga war a ñëw kon loolu liggéeyam la boo xam ne ni yàgg na ko liggéeyal alquran yàgg na ko liggéeyal ak bokk bëggoon waa kër sëriñ Touba bu leen masaa gis dafa yàkkamte ba nga xam ni ñi ko xam-xam nañ ko ku yàkkamte la woon bu daan dem Touba oto da koy dab rek waaye moom du xaar oto fenn da yenu dàll yi rek wéy yàkkamteem googu àggoon na ci sëriñ bu muy nuyu sax bu la nuyoo jox la lim lay jox rek dem na yoonam doo xam sax nuyu nga koom déet ñu ngi nettali ni dafa fonkoon sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma euh, di ko jox at yu dul jeex waaye du ko masam may benn bayaal bu ko sëriñ bi waxe baat day daal di daw dem rek dem yoonam ba keroog bi ko sëriñ Cheikh yónnee doom yi mu ko jëkk yónnee pour mu jàngal leen alxuraan def ni ah dafa daanu ci suuf ni defe woon naa ne sëñ Seex Mbàkke xamul sama tur te lu mu bay jox ko de waaye mësta jàkkaarloo mu may ko cinq minutes yu mën a wax ak moom baat day joxe rek ngir yàlla demu yoonam kooku moo di sëriñ jëmb siise yàgg fi waaye lim fi yàggee lépp alxuraan la dëkk bu saf alxuraan la woon wala boog tund wu saf alquran la mi ngi dëkkoon dëkk bu ñuy wax ciise digganteem ak misra maam Balla un kilomètre lay tollool ku ne xam na misra maam la moom it markasu quraan la woon ku xam ña fa nekkoon sëriñ sa mbakke sëriñ mbakke faa jama sëriñ moodu gasama ñooñ ñoo doonoon ay dëkkandoom ñu bëggante ngir wattu gu ñu wattu alxuraan ak bëgg gu ñu bëgg alxuraan kon sëriñ jëmbu moo doon boroom alxuraan yu rafet gi moo nekkoon ku bëggoon jullit yi moo nekkoon ku bëggoon sëriñ Touba ak waa këram ba mbind mii gën yi wane am nay jamono amul benn dongab daara buy am xol bu sedd te amul mbindum sëriñ jëmb koo gis rek dana naan ñaanal ma ma am kaamilu sëriñ jëmb ngir ma roy ci mbind ba ñëpp man cee roy daara jooju daara la joo xam ne nii sëriñ Suhayb bu mën na maa wax nii taskiye na ko daara ju mu mos a taskiye dana fa nangoo yóbbu ay dongo bokk na ci ñim daan yekkal ay dongo comme daara yi euh, sunu jàmbaar ji alaaji sëriñ sekk jee nekk te bayiti Seck te bàyyeem yore woon ko di sëriñ Mahmoudan rahmatullahi alayhi doonoon jàngalekat bu mokkal alxuraan te xam ko jooju daara moom it sëriñ su ay bu daf koo taskiye woon daa fa yóbbu ay dongo ñu defa mokkal di dellu si ci daaraam ndax sëriñ su ay bu daaraam dafa bari woon ba dey mujj di yekkale di jël ay dongo di leen yóbbu ci daara yi nga xam ne nii da leen a nongul ni daara la moom nag moom it mbind mi li tax mu bëggoon sëriñ Jémbu dafa bëgg mbind ku bëgg mbind mu rafet la ndax bokk na ci ñi dàq bind ci senegal li ma la ci jox comme misaal bind na benn mbind sëriñ Moulay Bousso dafa gis mbind mi tiit xoolaat ko ni farixtu bi nafsin fiihi sarraxtu muqlati bi xatti abibin faaxa xattam ni muqlati bi xattin wa saklin nam namat ibra burdihi banaanu imaamin muntamin li ahimmati shuaybin nada sayqi taqiyi lazi qada yaquudu fi aman lilhuda bil asimmati fa burika li fi nasqihi bi yaminihi wa niltu bihi yumnan wa acdama munyati kon foofu la gaa yi nekkoon Eh, ay liggéeykati alxuraan lañu ñu woon eh, dañoo bëggoon alxuraan eh, bëggoon itam liggéeyal alxuraan bind alxuraan dafa bokk ci ulumul xuraan alxuraan bu ñu nee diw mokkal na ko la muy tekki mokkal gu wéra wér mooy mokkal na ko man koo tari te du ko gis man koo bind te du ko gis ba àgg ci tafsir ko ak yépp loolu yépp ci liggéeyub alxuraan la waroo cee bàyyi benn lenn lu ci nekk da ko war a maîtriser loolu lañ doon liggéey loolu la gaa yi doon liggéey loolu la borom xam-xam yi di liggéey kon ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen sant bu baax a baax di sant ki nga xam ne nii moo sabab lii di Alaaji Sëriñ Seck waaye moom it mu ngi leen di santaat nag ndax bu doon moom kenn la nag du sotti loolu moom dama ko ciy ñàmbaasaat ndax euh, comité bi yor lii Alaaji Sëriñ Xaadim Sëriñ Saam di ay jàmbaar yoo xam ne nii ñu maîtriser alquran la ñu te xam ko li ma ciy joxe comme misaal barki dee boo njaay ñii doon saytu alquran ba ñu naw leen ci ci àddina bi sëriñ Sam mi bokk na ñi ñu invité woon Madinatu Munawara kon mel na ni am na num koom ci toppatoo alquran am na num koom ci ñu nu yoral sunu alquran bu leer a leer moo xam bind la moo xam jàng la moo xam lu mu mën a doon kon loolu dañ koy damoo te di leen ci ñaanal yàlla yàlla defal leen tawfiix sëñ fallu euh, alaaji sëriñ nee na bég na ci yéen sëriñ Fallou loolu moom yóbbante la woon bu mu ma joxoon di bég ci ñépp ñu fi teew nag ma ne tudd ñëpp waaye xam ngeen ni fii kenn dëkku fi kon ku déplacé wu fa nga dëkk ci koor gii ak ci tàngoor wii ñëw ba fii alquran ñor na la mbindum alquran ñor na la waaye C3S itam ñor na la alaj sey sekk mi la woo ba nga ñëwit ñor na la ba kon xolam tudd na ñëpp di jukki ci ñooñu nag groupe bii nga xam ne nii ñoo yore mbirum lajnatu tahkim bi wala boog euh, laj rabitatu ilmiya nu ngeen nu ngeen koy làkkee ci seen làkku arab bi dama koo déggul sëriñ Xaadim Njaay alaaji Fàllu Sekk sëriñ Sam Mbàkke ak ñi ngeen àndal taxawu sëriñ wóotu ko ci li mu waroon a def ba yëf yi nekk nii doomu aadama yëpp bëgg ci xam ngeen ni sant na leen gërëm na leen sant soxna yi ak ñi nga xam ne nii alxuraan mooy seen mbir yal na leen yàlla defal yoolub alquran yal na leen yàlla sàmm te sàmm réew mi sàmm àddina bi bi barakati alquran wa bi barakati chahri ramadan allati unsila fi alquran wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. barakallahu kàddu yu am solo yu yaatu yooyu yal na yàlla fay aw yi